jërë ngeen jëf ami internet ci taamu bi ngeen taamu xibaaru 24 actu tey nag les nar a ci seen actu du jour tey bi nag di coow yu métti ñu nemmeeku ca diwaanu Sandaga li ko waral rek di toj ba ñu bëgg a def boobu lee di Sandaga commerçant yi jaayee nag si diwaan boobu maire ba futu di joxoñ baaraamu tuuma ministre de l'urbanisme bi di Abdou Karim Fofana ci ñàkk wax gi waxul ak ñoom ñi nga xamante ni ñoom la yëf yi soxla di commerçant yi ndax nee nañ nga xamante ni moo di ministre boobule nekkeewul def ay point de presse ñëwul benn yoon ngir wax ak ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom la yëf yi soxal ba sax commerçant yi xamle nañ ne duñ demee noonu ndax dañoo amee ay bor amee ay relation ak banque te lool rek mën na yàq lépp loo xamante ni ay bien la yuñ taxawal coow la nag wundee na lool fële ca diwaan boobu lee di Sandaga dinañ ko toj am déet na nañoo jàpp ne aljuma bii rek lañ joxe ndigal ngir ñu toj boobu le marché ñu wax ci leneen soxal wàllum société di affaire Abdou Karim Gueye ñu tegoon ko loxo ci imam Léona Niassène biñ convoqué woon ñu gis ne l' activiste bi naka di Guy Marius Sagna daal dina si yëkkati ay kàddu ngir xam ne ki nga xamante ni moo di Abdou Karim Gueye di Karim Xurum Xaax bi muy passé guddik 28 jàpp 29 juin ci 2020 bi ñu ngi ko tëjaale ak pervision te autorité yi nanguwuñu ko may benn yoon li nga xamante ni moo di liberté moom Karim Xurum Xaax Guy Marius Sagna nag daal dinay wax ne ñoo defloo nit ñi luñ bëggul daal dina si dolliwaat ne jàpp nañ Abdou Karim Xrum Xax malgré état de santé bi nga xamante ne nii mi ngi koy dundoo waaye président Macky Sall bu xamee ne fii ak 43 mois du nekkati chef de l' état kon naka du doxalee nii. ñu wéyee ni ci affaire Abdou Karim Xrum Xax ginnaaw bi Guy Marius Sagna waxee Ahmed xalifa Niass moo ci daal di yëkkati nag ay kàddoom nee na amul benn yoon permis de a ngir gis Abdou Karim waaye naka jot na ko li nga xamante ni amoo di téléphone niki démb ci talaata ji nee na bi muy toll ne moom nii la meloon. taaloon na fi ay drapo France daan sonal li nga xamante ni moo di état ba tax rek da koy soutenir moom Abdou Karim ndax da koo jàppee comme doomam ndax nee na gis na nii moom Abdou Karim Xurum Xaax mooy Ahmed Khalifa Niass bu démb moo tax rek da koy soutenir di ko jàppale ci coow yi nga xamante ni mi ngi koy def ak xeex bi nga xamante ni mu ngi koy def lépp rek ngir dëkkam ñu daal di gis ki nga xamante ne nii moom moo di Mame Gor Diazaka moom nag yëkkati na ay kàddu du ñàkk rafetlu li nga xamante ne nii moo di sorti yu bëri yi Moustapha Diakhaté di amal jamono ji ngir jëme ko ci ki nga xamante ne nii moo di njiitum réewum Sénégal di président Macky Sall ndax nee na lépp loo xamante ne nii rek Moustapha Diakhaté am na ko ci ay bien ginnaaw yàlla Macky Sall moo tax mu daal di koy am kon nag warul génn benn yoon APR tax mu yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci njiitum réewum Sénégal moom nag nee na rafetluwul benn yoon comportement bi nga xamante ni kii di Moustapha Diakhaté jamono ji amee na ko jëmee ko ci njiitum réew mu Sénégal ñu ni ba léegi ndax gis nañ ki nga xamante ni moo di gouverneur bu région bu Dakar di Alassane Sall daal dinay génne beneen arrêté ngir fixer différents points de vente yi nga xamante ni moom la autorisé ngir ci feetu tabaski bi ñu dëj ma li ko waral rek ngir bañ lépp loo xamante ni propagation la jëm ci jàngoro ji di Covid 19 fixé ne nak ay heure 6 heures ba 21 heures la ñuy amal njaayum xar yooyu ba tax na nag kon jamono ji rek lépp lépp loo xamante ni dafay tax ñuy maytandiku lii di jàngoro ji rek ci la ñuy dox jamono ji ba tax rek préfet bi daal di def loolu leen ngir lekk mën a xeex jàngoro ji di Covid 19 kon njaayam xar mi nag am nag coppeeku bu baax a baax ca diwaanu Ziguinchor la ñu jubali daal di koy jeexale ak xibaar yi la ñu fa fekk rek di ay femmes ak ay jeunes fii amee xol yu sedd lool ndax muso laburo di ab dorog bu ñuy jëfandikoo sa diwaan boobu ci seeni partie intime ngir amee plaisir sexuel bàjjenu gox ba nekk ca diwaanu Ziguinchor euh, di madame Fatou Cissé amal ab jano ak taskatu xibaar yi si weekend bi ñu génn ngir xamle ni conséquences yi mën a joxe euh, boobule euh, dorog di cancer de l'utérus ak di provoquer ay divorce yu bëree bëri ca diwaanu Ziguinchor boobule. li nga xamante ni nii nag ah, moo di Mousso Laboro di ab langue manding la muy signifié rek moo di médicament fantastique des femmes jamono ji nag askan ba nag ba yeewoo ca diwaan boobu boobule di ay xale yu amagul jëkkër ak ay jigéen yoo xamante ni ñu ngay sëy jamono ji nag talatuñ seeni borom kër ba tax sax ay divorce yu bëree bëri jamono ji ma ngi koy jur ak lu ci mel ne ay cancer ndaxte talatuñ benn yoon toppatoo seen borom kër ndax boobulee doro ko mën ñoo jàpp ne mbir moomu nag la ñu ko fabriqué rek moo di yàmba xeme ak tabak moom la ñu boole daal di koy def di ko jaayee nag ci prix bu yomb mën nga koo amee cent franc trois ba quatre cent franc kon nag bàjjenu gox boobu lee ma ngay ñaan nag état wu Sénégal mu jàppale leen ci mbir moomee nga xamante ni mu ngay wëy di wënde askan wu Ziguinchor amee njàqare loolu ci boobu le mbir fii rek la ñu koy nder keppee jox leen dig daje ba ëllëg ak jàmm amee internet yi di leen ñaanal kendalug jàmm te di ko sàkku ci yéen